plainte ak pétition yu bare ci wàllum yokkuteb courant gi commission bu ñu jagleel saytu bi le secteur daal auto autosaisiru ci bile le dossier ngir gën koo mën a càmbar régulateur bi toogul rek di xaar jël nañ ay initiative pour def auto autosaisine parce que constaté nañ ni am na ay réclamations. initiateuru pétition ngir xeex yokkutem courant gi. jot nañ koo jëbbal ab mémorandum. discuter nañ ci point yu bari après remettre nañ nu benn. mémorandum bi nga am ni am na fukki ponc am na ponc yi nga xam ni euh, ñun la concerné ñun commission de régulation secteur de l'énergie am na yi nga xam ni gouvernement bi la concerné am na yi nga xam ni aussi rek la concerné ci def commission bi mën a saytu bi le mémorandum initiateuru pétition yi fas yéenew ñu benn yoon teggi seeni loxo ci xeex bi ñuy xeex yokkuteb courant gi président Ibrahima Niane nee nañu ñoom ci seen bopp convoqué nañ Senelec euh, donc yaakaar nañ ne affaire bi dina bouger waaye nag loolu ñun ñu de du tax ñu bàyyi de parce que mobilisation bi dañ koy continuer ndax buñ ko continuer wul facture yi di ñëw Senelec dinañ ñu doggali te loolu ñun duñu xool ñu koy def. ci fàttali RSE moom mooy déterminer grille tarifaire bu Senelec même bu dee lu jëm ci wàllum politique tarifaire nguur gi moom mooy yor dogal gi ndax moom mooy xool ba xam dina amal ay subvention am déet ngir consommateur yi gën cee mën a njëriñ.